salaatu taw ba mooy jullik tuub wala jullik jégglu ñu ne julli googu kañ la ko nit wara julli mu nekk waxtu woo xam ne dañoo boyal nit daat ci la ndax dafa am juróomi waxtu yoo xam ne dañuy tereku ci julli yooyu ba ca jiitu mooy ginnaaw julli fajar ba jant bi fenk loolu kenn du ci julli kon julli googu boo ko buggee julli bul ko julli ginnaaw julli fajar direct xaaral ba jant bi jóg ci kaw nga daldi julli ñaari rakka yooyu ñaareel bi bu jant bi di jóg ba tolloog lu toll ne xeej maanaam jant baa ngi génn di xonq bul ko julli bàyyil ba mu fenk ba ca kaw nga doog koo julli waaye foofu muy xonq bul ko fi julli ñetteel bi mooy bu jant bi nekkee ci digg asamaan bi ba jant bi daal orienté wu jéng jëm beneen côté bi mën nga kaa julli waaye bu jant bi nekkee ci digg asamaan bi sa takkandeer nekk ci suuf nga xam ne dootoo gis sa takkandeer boo taxawee yow ci sa kanam sa kaw takkandeer ngay taxaw waxtu woowu kenn di ci julli julli googu di julli jéggalu ñeenteel bi mooy ginnaaw julli tàkkusaan sëlmal tàkkusaan rek bëgg kàbbar ñaari ràkk yooyu loolu kenn du ko def beneen bi mbokk yi mooy jant bi buy sow bu demee bay dugg foofu mu xonq dañuy tere ku fa julli kon juróomi waxtu yi julli gii di julli jéggalu yàlla julli gii di julli balu yàlla kenn du ko fi julli feneen fu dul fii nag mën nga ko fa julli saa yoo gisee ne danga war a jéggalu sa boroom danga war a dellu siwaat ci moom danga war a tuub mooy tëndikul waxtu yi su waxtu yi paasee fu la fi neex julli ko mbokk jullit yi li war ci ab jullit bu def ay bakkaar mooy mu gaaw daal di tuub fal alal muznib al mubaadara ila tawba li war ab jullit mooy mu gaaw kéemtalaayal kattanam mu daal di jéggalu borom bi tabaraka wa taala di tuub ndax tuubkat ku ko def yàlla jéggal la la nga njuumoon tuub ku ko def yàlla baal la la nga defoon waaye mbokk yi am na nag jamono joo xam ne wala waxtu woo xam ne bu fa nit yeggee bëgg tuub yàlla du ko baal na jamono yoo xam ne waxtu yoo xam ne su jotee nga bëgga julli ñaari rakk yooyu pour jéggalu yàlla yàlla du ko nangu loolu mooy fan soo demee ba sa ruu daa jege sa put sa ruu dugg ci sa jege sa put nga war a faatu su boobaa soo jégguloo yàlla tabaraka wa taala soo jégguloo yàlla yàlla du ko nangu mooy isa balagati su ruu gi yeggee ci dënd baat yi soo tuubee yàlla du la baal inna allaha yaqbalu tawbatul abdi maa lam yu xarxir yàlla dina nangu tuubu jaam fekk xorxoriwul su la dee dikkalee ba ngay xorxori boo buggee nee naa tuub yàlla du la baal kon kuy tuub na gaaw balaa loolu yegsi ñetteel bu jant bi génnee fa mu doon sowee isa talaati shams min maghribiha tuub toog bañ a tuub toog bañ a tuub ba jant bi xëy fa mu daan sowee ñu génn ñu gis ko mu fay fenkee soo tuubee yàlla du la baal man taaba qabla an tatlua shams min maghribiha taaba allahu alayhi yonent bi ne na képp ku tuub feek jant bi génnewul fa muy sowee yàlla dina la baal yàlla dina nangu sa tuub waaye boo bàyyee ba muy génne foofu soo tuubee yàlla du la baal mbokk jullit yi ku nekk ci bàkkaar tamit nekk ci caaxaan ba munatoo dangaa màgget nga ne a ah, xaaral ma tuub ndax léegi mënatuma ko tuuboo tuuboo waaw léegi mees jàppatu la gerefaas xeesal jàppatula la emaay jàppatu la ah lu bëri jàppatu la nga nga ne xaaral tuub loolu du tuub tuub ma ko mënee nga koy ba nga julli ñaari rakka yooyu daa di lu yàlla tabaraka wa taala wane ne ko tuub naa lii kat tey laa ko gën a mën waaye génn naa ci basat tuxum yàmbaa beeg tuxum póon beeg cigarette beeg takk lam yeeg xaaw yeeg pettaaw yeeg sàngara seeg la ca aju yëpp nga daal tuub tey laa ko gën a mën may bàyyi naa ko ngir sama borom maa ngi nii jaayante naa ak borom bi julli naa ñaari rakka dootuma ko laal allahu akbar yàlla nangul la ko jéggal la say bakkaar doomu ndey mbokk jullit yi waaw ñaari rakka la yu di julli ñaari rakka yu nit di julli ginnaaw ba laabee ba set nga moytandiku waxtu wudul farata nga daldi koy julli li ñu bëgg sax boo koy julli nga nekk yow kenn cundung waaw nga julli ko boo paree nga jéggulu yàlla astaghfirullah wa bi ilay bëgg nañ ki koy julli mu toroxlu yàlla tabaraka wa taala ndax yàlla jéggal ko ay bàkkaaram saar bu la ci neex nag jàngal aaya bu la ci neex jàngal waaw bu la ci neex jàngal saar bu la neex jàngal exiger wuñ la foofu benn aaya soo paree nga góor góorgóorlu ci jëf yu baax yi lu mel ne saraxe soo mënee saraxe nga saraxe ndax sarax dafay dindi ay bakkaar waaw sarax dafay dindi ay bakkaar yow mi tuub soo paree saraxeel bu fekkoon ne danga ci def ay photo xotti ko bu fekkoon ne ay yére la dindil fekkoon ne ay mees la firil su fekkoon ne xeesal la bàyyil bu doon ay weyi gudd la daggal bu doon emaay la xoosal bu doon barab booy dem la bàyyi ko bu fa demati mbokk jullit yi dee dee bette moo tax doomu aadama war gaaw tuub dee day bette doomu gaa aadama na gaaw di tuub ndax xamul fan la ko dee di fekk xamul kañ la ko dee di këf te soo deewaale ay bakkaar dem ci yàlla di nga rëccu loo doon dunde ci kaw suuf mbokk jullit yi ku dee dem àllaaxira yóbbaale ay bakkaar kooku du texe waaye képp koo xam ne faatu nga yàlla jéggal la say bakkaar yow texe nga alaaxira ay bakkaar dong lañ fa bañ moo tax nit waru ci toog di dajale waroo toog di dajale ay bakkaar del tuub del jégglu yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee maa leen gën a ragal yàlla waaye bés bu nekk dinaa jégglu yàlla téeméeri yoon beneen riwaayan bi juróom-ñaar fukki yoon xoola ku na yonent bi di jégglu yàlla te alxuraan moo ko sant fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfiruhu baalal sa turu borom dee ko jégglu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bis bu nekk dinaa jégglu téeméeri yoon wala juróom-ñaar fukki yoon may jégglu sama borom ndax mu jéggal ma waaw ñun kan moo ñu jéggal te yonent bi yàlla jéggal na koy bàkkaaram de yi mu yëg yi mu yëgut doomu ndey yi mbokk jullit lu nu góorgóorlu julli gi mooy julli jégglu julli gi mooy jullik tuub te tuub ak jéggalu lu war ab jaam la tuub ak jéggalu lu war ab jaam la tuub ak jéggalu war ab jaam la soo tuubee jéggalu góorgóorlul ci yëf yu baax yi sonnal ci farata yeeg naafila yi ngir nga mën a sax ngir sa batterie bi di chargé wu guddeeg bëccëg nga am loo xamante ne moo lay kattanal ngi jéggalu kàddu yi di ñaan yàlla yàlla nu yàlla nangul nangul leen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.